wax rek du bëri ñun maanaam toujours li may faral di wax rek mooy suñu wax bëriwul comme te activité dafa xaw a bëri euh, ñëw nañ fi keroog di gën a ñëw nañ fi keroog ba am na engagement ñu jëloon tamit sama mbokk tukulóor yi sama tante yi sama ndijaay yi ak sama sœur tey moom la ñu ñëw tey indi leen comme noo ko xamee ñoom chaque année dañu am di ziar bu mag bu ñuy def ziar bu xam ne macha allah ñitu yàlla yëpp ñëpp foofu la ñuy daje. tey nag li ñu ni tey lu ndaw la rek dem euh, maanaam avant kii la rek juste euh, kii la rek début bi rek la mais comme noonu nga xamee ñun dañuy ñëw pour jàppale son excellence président Macky Sall Macky ni nga ko jàppale si dëgg nañ koy jàppale pour lan pour Thiès émerger lii ñu def nii yëpp émergence rek la si bopp nañ ko defal li may wax rek mooy ñun du ñu bëri wax ñun si wax bu bëri mooy lan mooy jëf bi mooy si wax bi waaw donc waxoon nañ leen leen dinañ fi ñëwaat yàlla def na ñëw nañ fii yalla bu mu yam fi mais li ba mun a xam rek mooy dinañu continuer encore di leen accompagner si wàllu lu bëri waaw même ziyaara bi xam ne yëg naa ko kero wax naa ko acca ma ne bu soobee yàlla bu ñëwee rek dinañ si dugg si lox bu baax a baax jàppale leen xanaa ngeen dolli ñaan rek lu mu vraiment di leen gërëm di leen sant salaamaaleykum jaaraam merci. wootewul politique politicienne wootewul politique kese mais politique de développement la woote. te pour pourquoi may wax lii la fois passée lii dama am fenn fu ma dem fu ma assisté ma gis ko muy suma ma juumul xaw ma dixième dama fa dem dama ko fekkee ma gis ko kon lii c'est pas la première fois waxuma ko pour dara mais dama ko wax te yàlla rek tax donc kon politique de développement boobu noonu muy woote ci fedd yi wele yi nii lii parce que dafa am benn wax bu mu wax fi bu am solo dafa ne nit ki au lieu nga koy may chaque jour jën jàngal ko nu muy nappe ma doon xool ndax loolu noonu ci ay waxi kese la ndax théorie kese la mais dama ne moo xool xam ni loolu du théorie yamul foofu noonu man damaa sob ma dem ba ci internet bi dugg ci YouTube li may wax ñoom xam nañ ko da ngay gis ay kii yoo xamante ni ku weddi li ma li may wax boo demee ci internet boo tapé bindal Habib Niang rek mouvement ànd suq di nga gis ay image ay vidéo yoo xam ne day génn kon donc nit ki boo koy jàppale da nga koy jàppale ci lii nii su ko defee ñoom ñu am ci luñ jàpp ñu am départ ñu mën a continuer parce que man politique de développement ñu loolu lañ gëm da fekk nit ki ci lu mu ne nga jàppale ko ci loolu noonu mu continuer lii nag waxuma ko pour jeter ko ay fleur waxuma ko pour dara sax fekk ni boo gisee nen neel nen a ngi nii loolu moo am moo tax ñu wax ko du leneen waaw balaa loolu nag parce que fii sama yaay kese fi ne jàppale mel na ni man man man je a apolitique man gëmma politique mais bu ma gisee dëgg dama koy wax man je suis comme ça waaw di leen wax ni bisimilah boo xam ne bii am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem lii ñu ñu di ko ñu dëgmal ko di ko dox ñu ngi ñaan yàlla ak yonent bi yal nañu ko yàlla mottalil moo xam li gën yal na fekk muy gëneel ci gëneel ci ñun ñëpp lii nag ñuy def ñuy dox Macky mii ñuy jàppale dañoo bëgg seen xel dal ñun de suñu xel dal na ndax wax dëgg yàlla ni ñu leen gisee suñu xel dal na dalal ngeen suñu xel ñun itam ñu bëgg ngeen dalal seen xel te xam ni ñun ñoo yéen rek géej gi fere incha allah bu soobee yàlla ñu ngi ñaan ci yàlla moo am moo mën yal nañ mottalee suñu sago yal nañ ko mottalee suñu sago lii ngeen def nag teraanga bi gis nañ ko gor nag bu ko teraanga doyulee leneen du ko doy ndax déplacement bi ngeen def rek ñëw di ñu seet si rëy na ci ñun lool lu rëy la kon nag ñu di leen masaw coono di leen jaarlu di leen wax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëfati lii moom indi ngeen ko waaye teraanga bu bu rëy la ci te kontaan nañ ci jarul ñu guddal wax ji may sant nag ñii nga xam ne dañ maa jiital wax dëgg yàlla te xam ni ñun kenn ni rek lañu benn nit dong lañu fii ma toog nag kenn ku ne mën nga fee toog kenn ku ne li may wax mën ngaa wax sax lu ko raw waaye nag maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant nag lépp loo gis ci àdduna sabab moo koy doxal geddaadu mii nag moo leen gis doylu ci yéen waaye wax dëgg yàlla gàcce nga laama ñun ñëpp doylu nañ ci kon nag alhamdulilahi rabbil alamin allah yal nañu yeggalee suñu sago mottalee suñu sago lépp luñ ci bëgg may wér ak wérle ak gudd fan ak fekk ak tal te rafet fekkin te daraja rasulillah min ma jaafoten e restaurant seeɗa arande mboyan ko mbimi dakar vraiment min délégation foof min ko juurade moon comme noon gandirɗo tan minen ko politique concret min mbarat min ko le son excellence président Macky Sall pour heɓo deuxiéme mandat hoɓɓe min jiiɗi ko wallude président e goonga pour hollude askan o ko président Macky Sall omon liggoo minen nak min batta politique politicien min garindo ɗo ñanden jogi komin no mon num tan ko fuudade tan min ñanden mi haalni acca mbimi so allah wadi jam inshallah so ziyara mon ene fuddo komin nanno hen jungo men no fewi jeyaro yomin tin kadi komin num kadi ko fuddade tan so allah jaaɓi kadi momin momin ɓeydu wadde moon accompagné no fewi e wallu ko heewi kadi par ce que mi wiyanmi tan ma jafat hande ara hande mandude welade no fewi guila caggi ha jongonomi ko paali wasan wimi tan mi ara tan juurade moon andude min moonam caggal moon inchallah rabbi komin wiwoni paré moon foof to memnon to mami naati hen so allah jaaɓi inchallah en tout cas beltima no fewi somi yetta hande jettanmi hande ko gorgolam mawnam foof jeddaɗo e mbi ko ganduɗa acca woni ko mouvement men darirno fewi guila hecciani ko wonnoto kam haabi foof paari mbimi a minde hande il faut que mi yaha par ce que mi jogui programme goto paɗo kam mais hanmi yaaɗi fo mi rewdo d' abord juurade moon andude kadi molom caggal moon so allah jaaɓi foof ko footi yaadude e, yaadude yessan momi dara hen andude minen min ballat son excellent président makisall ko gonga min ballatmo donc pottide développement mbaɗatmo pour hullodemo kanko omoni liggo vraiment on jarama no fewi weltima ha ñanode inchallah salamu aleykum bon gen balo mbokki allah kadi adi allah kadi wattinto min ji golle moon ko kala ko mbawnoɗon haalde e wiide ene wayno ɗum kam waɗi sedantagal min coyninoma onɗo guila hanki tawi hande suwa arde ko jeeheten ko noon ganden en minene moɗon ko heen tawɗon min ɗo tawɗon min heen ko kadi emin belti heen kadi on ngari kadi on jokki neɗɗo noon ɗoftirta kaw mum ha soja kono so soñi so saati ɗum tan na wat oɗo makki mo ummani ɗen min jiɗi andinde on tan minen hannde caggal alah e nelaɗo muɗum ala momin di ala momin nani ala momin keɗi ala momin cohli sowana ɓoron e makke fedde mum aroɓe kadi ngari haaloɓe kadi kaali yahoɓe kadi jeehi kono min mbi hankkadi minen ɗo min goni ɗo ko ɗon tan min goni hay goto kadi wawi ittude min ɗon min jiiɗi noon yo haqqillaji moon deeƴ kala ko mbawɗon hen miijade e anniyade hen min ñaagui allah noon jortoma ñaaguiɗen hen o yo allah jortan en hen ha diwa ɗum ɗo ko mbaɗɗon ko kadi allah kadi yii ɗum nelaɗo kadi seedima saabu ɗum ɗo ko yiiɗande woni ɗo heewide ɗum ɗo fuɗɗi kono ene wayno minen kam hay goto arani amen min cohlanine kadi hay goto min jahannota mum fo yahan ton ko himme hoori mum on gari noon on gardi goonga on gardi doole on gardi yiɗande te on mbaɗi ɗum on kolli kadi min ji ɗum ɗum ɗo ko mbaɗɗon ɗo ko ina heewi no feewi sa nani keewal ngal noon ko teddungal ngal ardi taw sabu neɗɗo kala ko dañƴa a ardini heen hoore ma yidde hoore mum noon wona añande banndum ko dañƴa ko ardini heen bande en a holliri ɗum tigi haa minen fof min ji ɗum minenne komin ngoni ko emin paarnori ɗum saabu ɗemgal amen ngal emin parnori ɗum ha ɗon tan wawi haadde ko gadduɗon ko noon min jii ɗum wona seeɗa ko ene heeɓe amin no feewi saabu teddugal ngal ko ɗum tan minen min jii heddiɓe ɓe noon wonɓe ɗo ɓe min tin tan ko sennude on e andinde on ɗum son jeehi woto yo haqqillaji moon ndeeƴa arɓe e ɓe eɓe garani foof minen fof komin neɗɗo goto ɗo ɗo jooɗimi ɗo moni fof ene wawi jooɗade ɗo te gandon kadi minen komin neɗɗo goto min gona yimɓe ɗiɗo kala ko mbawmi haalde ɗo moni fof ene wawi joɗade ɗo haala ɗo ko ɓuuri ɗum saabu minen emin kollodiri emin jiɗodiri emin korsodiri te min gandi kadi haala amin kadi ko haala goto komin neɗɗo tan goto min gona yimɓe ɗiɗo min gona yimɓe tato ɗum noon yo allah yom moƴƴere bandiraɓe mbi habibu si ane bandini koreji ma min jiima a yimin habibu ñang <laughs> min jiima a yimin ɗum noon ni joguiɗo fuɗɗi kono kadi ala kadi ɗo haaɗi eɗen ñaagui allah noon sago guiɗo e sago gaño yo allah rokku hen sagoji men ɗi ɗum ɗo ko cummuɗen ko yen gandu oɗo yenna nani makki ko makki men hande ko makki men janggo ko makki men ɓawo janggo ha ila yowmi dini ko minen tane makki ɗum kam ko firnde lamde ceer yo haqqillaji moon deje hen eyyi ɗum noon payna e julfe e bandiraɓe men ɓe garɗon ɓe mbokk yi assalamu aleykum